liste commune Touba yaakaar naa question bi population ñoo tontu. Hmm. du man maay tontu population ñoo tontu ndax population ñi ñoo tontu wooteel trente neuf mille bulletins blancs population ñoo tontu wooteel équipe boobu onze mille cartes kon day ma ne ñi woote contre ñu ëpp ñi woote pour pour Abdoulaye Wade wala wala maanaam a am loolu nag dafa laaj am njàngat. Hmm. ci moom mi ñu élire entre moom moom mi jiite équipe boobu mais ak kilifa yi jiite dëkk bi tamit ñu déglu bu baax li population yi bëgg li waa Touba bëgg. lu am solo la li am solo mooy man population yi moom wax nañ li ñu bëgg loolu nag jàngat bi ñun ñëpp war ko def mi kilifa diine mi kilifa gu mën a nekk ci ndax loolu wane na ne am na lu bëgg am na lu bëgg wax sëriñ bi am na luñ ñu bëgg wax tamit équipe bi fi nekk. ñaareel ba la ci nekk mooy ab jàngat mooy ci turu liste bi ñu ko def turu liste bi ñu def nekk na gàllankoor bu mag ci Touba gi ba tax na ah, xalaat nañ ne jàpp nañ ne war nañu mën a changer turu liste boobu di ko def ci liste présidentielle wala liste ci ma ma ma ma présidentielle sëriñ bi war naa mën a am liste boppam loolu su amee jàpp na ne liste boobu nit ñi dañ ko wote 100 pour cent kon liste bi nga xam ne ci la nekkoon mi liste benn bokk yaakaar. ñu xam diggante benn bokk yaakaar ak Touba nekk na gàllankoor bu mag si ci dëkk te loolu dafa influencé nit ñi woote bulletin blanc bi loolu bokk na ci li waral bulletin blanc bi ëpp fii ci ci Touba. Euh, su ma nekkoon place su Abdoulaye Ka man damay démissionné loolu euh, lool nag man na concerné su ma nekkoon place su Abdoulaye Ka man damay démissionné tey waaw ci ñaareel question bi pour jox loxo nguur gi. nguur gi amuñu ma relation bi ñu am ay relation bu ñu inscrire la dans une république normal ndax bu ñu fàtte ne muy commune mi département ay bànqaas lañ ci nguur ay bànqaas lañ ci nguur gi ñun bëri rek na nañoo nekk euh, kuréel goo xam ne nii dafa contre nguur déedéet kuréel gi tant que département maanaam contre nguur Fallou Mbacké en tant que politicien man politique moo nekkut APR moo nekkut benn bokk yaakaar mais président du conseil départemental moom mi ngi ci nguur gi la nekk man maa ngi ci nguur gi parce que maanaam euh, commune bi département ay bànqaas lañ ci nguur gi ay demande de lañ foofu lañ war a woote nag ñu xamal ne ñun posture républicaine lañ nekk ci li ñuy liggéey moom amuñ amuñu luñ ci yàqal nguur au contraire li ñuy liggéey nañ ci jàppale nguur ndax nguur moo jël ay ay pouvoir ci wàllu de décentralisation jox ko dox goxaan yi donc pouvoir yooyu ñu jox muy compétence transféré yooyu ñun ñun ñoo ko yaral nguur gi ci maanaam population yi kon nag amut maanaam relation opposant bu nekk entre ñun a nguur gi amu fi relation d'ensemble la war a nekk ñu ànd liggéey maintenant bu dee ci parti mën na nekk leneen mais bu dee ci institution bi nag institution bi ci biir maanaam ci biir nguur gi la nekk du opposant parce que li muy liggéey nguur gi la koy defal ndax nguur gi moo waroon def loolu mu jox ñu cër yooyu ñu def ko defal nag waaye daa mel na ñoom dañuy xoole ci wàllu politique te loolu man yàqaluñ ma man population Mbacké la ñu yàqal naam dana ma naqari quand même ndax ñoo ñoo fi nekkal man population yi